jërë ngeen jëf mbokku internetu Bawal TV mbokku internetu ci réew mi ak mbokku internetu Actubuzz TV ñu amati mbétte contentement bu baax a baax mais ñu ngi bu baax a baax ñëw dara li nga xamante ne mooy coach Lamine ah coach Lamine Faye ñu ne mooy ci côté li nga xamante ne mooy ci côté làmb parce que nag jamono ji ah, Serigne làmb yëngu na lool waaw dane bu bu géwél Sadio ndënd yëngu mais fi mu ne nii ndënd yëngu na làmb yëngu na géewu làmb yëngu na coowal làmb bari na lool jamono ji fi ñu toll mais mun ñu toog ak Lamine moom tey ci li nga xamante mooy ci actualité lamb ci lu baree baree bari ak jafe-jafe yi nga xamante ne mooy lamb waa Géejawaay ñoom créé nañ fi seen affaire boobu fi ngi leen nuyu maa lay fay bu baax di la siyaar di la màggal di nuyu monde entier di baalu ñëpp àq tey baal ñëpp àq di ñaan yàlla Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di baal baaluwaat encore une fois monde lamb àq te naan baal naa ñëpp di ñaan yàlla na fa jàmm yàgg ndax ñun làmb mooy sunu sport national te mooy sunu culture kon maa ngi ñaan lépp lu luñ bëgg si làmb rek ci lu baax rek yàlla na ko sunu borom defal làmb nag ak coow ñoo ànd dañoo baaxoo coow kon coow làmb moom saa yi dañ ciy wax liñ mën rek def ci liñ mën rek te xam li si des moom làmb moo baaxoo moom ñu bàyyi koog làmb dégg la mhm. dëgg la ci ci laay ñëw ak yow léegi-léegi écurie Balla Gaye xale yi ren sorti yi mais xale yi bari am nañ combat entre Lamine ak coach liggéey bi ngay fas yéene liggéey xale yi ban façon liggéey ngay liggéey ak xale yi ci yan état nga bëgg xale yi jamono jii pour ñu toll foo xamante tey ci ci làmb parce que ñu ay jamono équipe Balla Gaye la jël ay talent lamsaar ci la ñëw ji nag ngeen commencé di baissé ndànk-ndànk lan la fan lañ baissé eh, baissé ngeen bari ngeen journée bari ngeen ñàkk seen booy Youssou Ndour moo fi amagum ndam ci ci ci ci booy yi dégg dëgg ñu dégg ñu tuur mais tey ji mën naa école de lutte Balla tey ji suñu amee vingt combats 16 yëpp gañe nañ ko mais dafa am tête yoo xam ne suñ daanoo rek dañuy jàpp dañuy jàpp ne école dangay xam ne école bi moo daanu. waaw mais nombre de victoire yi moom moo ëpp fuuf defe di ndax wax dëgg yàlla booy ñu ngi bëri ñu ngi daan. xëy na ténor yi ñoo am fuñ sooxee tuuti. te fi ñu sooxee tuuti mooy tey jii làmb làmb la quoi. tey jii am na fu ñuy yegg rek yaakaar ne affaire bi ñoom la. te du ñoom. na bal ngeen de. gis nga ak may dégg. <laughs> booy nag ñoom ñu ngi liggéey. wax dëgg yàlla ñu ngi liggéey ñu ngi wane ay résultats yu baax wax dëgg yàlla ñoom ñëpp a ngi daan xale yi ñoom ñëpp a ngi daan mais tey jii ñi nga xam dañoo def seen bopp mbëru millions yi bokk ñoom ñoo war a xoolaat xam lan mooy entre xam lan mooy làmb xam li làmb laaj ak li làmb bëgg ñu koy def mooy respecter entraînement yi di contact surtout contact contact mooy lépp dëgg la mooy lépp mbër mu ko ci deful rek defoo dara musculation bee géej géeg din yéeg boxe beeg yëpp dëgg la mais mbër da ngay contact. dëgg mais tamit maa ngi ñaan yàlla sunu borom ñoom ñi fa am combat ñëpp ñi des ñëpp sunu borom defal leen ndam. Mhm. mais dinaa jël combat risque. mooy papp Ndoye ak Thiat Dodo Fall lamb ji risque la ci seen côté yéen. non àdduna lépp risque la. loolu yàgg naa ko wax ndax yaakaar naa ne yéen fi ngeen jógee sori na trop avant ngeen di ñëw fii ak seeni micro. te lu ne mënoon na leen dal si yoon bi. man nii fi ma jógee sori na trop avant ngeen di ñëw di ma fekk fii. te lu ne mënoon na ma dal si yoon àdduna lépp risque la ci at daaw dafa am mbër la xale la te champion soo ko bëggee doon faaw nga jël ay risque te dafa bëgg a nekk champion te maa ngi koy ñaanal lim bëgg si carrière am ñun ñaan rek lañ mën ak sabablu yàlla sunu borom mooy dogal li mu bëgg ci carrière ak ci ci xolam ak li mu ko tax di sonn yàlla na ko sunu borom defal mais mën ngeen mi ma gis est-ce que mën ngeen ci moom dara noo yaakaar naa mën na si moom dara ah yaakaar waaw ndax nit ku nekk yaakaar nga am. ndax tey jii mu ngi entraîné ak ñoo xam ne ni ñoo ëpp dayo Pape Ndoye fuuf. Mm-hmm. te mu ngi am ci ñoom dara. Mm-hmm. te la muy am ci ay tey jii ku ci mel ni ay Fils de Balla ay Youssou nduur mm-hmm. ak yeneen mbër yoo xam ay jawde ak yeneen ak yeneen tey jii gëm naa ne su ko defee ci Pape Ndoye am ci dara. maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yeggaleel mbëbëtam si combat bi rek ndax xam naa ne ndam rek moo ko si jik te moo ñu jigaale ñun ñi kon man maa ngi ko ciy ñaanal. sunu borom defal ko ndam. ay faayam ci côté bëre que ne buy def kele coup yi muy jël foofu day bari te da koy résister di bëre erreur boobu maam mu ngi koy sóoraale moom ci diggante ma pam doy pam doy bëri na ay mbëri fi tee dóole bañ abandonné làmb ji loolu lépp dara xale la tey jii ci àdduna dafaal toll na foo xam ne fii mu toll fii mu yegg nii sax dafa teel ci moom hmm? mun te ñàkk bañ a def erreur si biir bëre mais lépp rek tey jii tey jii élève bay jàng sax day tàmbalee sixième dem ba sem 2 hmm. te munoo ñëw rek sixième mën la élève CM2 ba mën munul ne lépp da koy tarbiyu étape par étape lu muy gën di dem suñu boroom di ko def muy déggal ñu mu war a déggal di respecté njàngam njàngam laa si ko de njàng tant mu ngi respecté njàngam fi mu bëgg a yegg dina fa yegg erreur yi mënut a mais lépp rek c'est à rectifier quoi. Mhm. nànk-nànk. coowal tarkindaay ak ci làmbu. Mhm. waaw. waaw loolu dina wax. day mise à jour luy mise à jour. comme nga yor sa téléphone rek. waaw jékki-jékki rek mise à jour. changé say lépp changé lépp. mbër mu mel noonu est-ce que kooku neex neex neex na daj. waaw loolu mën na nekk. maa ngi ñaan sa jour combat ba yàlla na mise à jour boppam. ba lépp eh, ba dina baax si may waxee déglu ma déglu ma. <laughs> Hmm. mise à jour mooy nga jël sa téléphone. def ko xam day fay xam na kii kii bi day fay redramé waaw. Ah, waaw redramé diggante ba mu koy mise à jour. waaw ba mu heure ba mu koy fay. balaa muy tàkkaat bay ñëw mise a jour yàlla na sunu borom defal ñu ndam fekk xam nga moom moo ko mise à jour boppam eh. xam nga nit ku mise à jour sa bopp moom dara du fa dox ah. dara du fonctionné na ko def heure bi ñu ko soxla rek Thiat Daouda Fall est-ce que laajul tarkindaay laaj leen kan mooy pap pap sonal na leen de ñooñu non garaaw Thiat Daouda Fall moom am déggul nga Thiat xale la te bëgg na te mu ngi daj ay coono mm-hmm. mu ngi entraîné wax dëgg yàlla muy ku respecté ñëpp muy ku respecté ñëpp man de guddi ñu toll gis xamaguma jikkoom xaw ma nag fii ak ci kanam mais lii mu ma wan mm-hmm. respect ak cër la ma mm-hmm. wan te lépp lu muy dugg wala lu muy bëgg a def dina ma waxtaan seek man amul dara lu muy def te duma ma laaj bàkku sax su ko bëggee def démb comme répété tous ba mu ko bëggee def sax woo laaj ma ba pare. bis que yaa ngi may dégg. répété tous ba mu bëggoon def démb école ba. Hmm. avant mu koy def sax une heure na ma laaj ma ba pare. ne ma damaa bëggoon répété ma ne ko ok mën naa nekk. Hmm. su ma ne woon déet doo répété du répété. maa ngi koy ñaanal daal cër ak respect bi ma jox yal na ko suñu boroom taxaw may ko ndam. Hmm. si kaw paam Ndoye. dëgg la bi nga xam ne ñëw na ci làmb. yéen na yéen ko créé xaw ma Balla Gaye ngeen bëgg mu doon ah, apprenti xaw ma lan la mais Aziz indi na proposition ci làmb gis nañ nag dip booba léegi kàddu yi ci am coow ya ci am yéen loolu lan nga ko mooy li ma ubbee rek sànq wax naa la ko làmb ak coow ñoo dafa baaxoo coow. te al amin daf di nit ku mën bés. waaw mën na bés de dafa mën bés te daa bëgg bruit. dëgg la de. te bruit boobu lim bi mu bëggoon am lim du lim doon lim bëggoon. am na ko. mooy li ma mën a wax daal si gàttal Aziz lu mu wax ak lu mu bëgg a wax ak lu mu def ak lu mu bëgg a def ak lépp baax na. ah déet lan moo tax loolu mais yéen da ngeen na waaw waaw mën promoteur am man xooluma ñeneen ñi ah Aziz nga xool man xooluma ñeneen ñi la xooluma liñ bëgg xooluma liñ bañ man eh. Aziz laa xool li mu bëgg mais est-ce que boo basé woo si loolu li nga xamante ni moom la làmb bëgg actuellement tey tey dama lay wax benn dama lay wax benn boo fekkee si li nga basé wu rek ak sànci wu ko ne lu mu def baax na rek lu mu wax baax na waaw lu mu bëgg a def noonu la est-ce que loolu war war nañ ko léegi man dama koy waxee ci benn côté tey ji daa am benn philosophie bu ma yor hmm. waxuma si cadre en door de lu arrangé làmb ak lu arrangé wul la ñëpp xam nañu Modou Lo c'est le roi des arènes ah yow nangu nga Modou Lo mooy roi mu neex mun naqari mais mais dégg waaw déglu ma hmm. bul ma doog Modou Lo c'est roi des arènes hmm. kenn mënu si dara Ndiaye moo bëgg a créer lan l'empereur ah moo ko créé Aziz lu mu bëgg lu mu def noonu la lu mu bëgg def noonu la lu mu wax noonu la lu mu bëggut a lu mu bëgg a wax noonu la man Aziz laa àndal ci li mu wax man defi yéewu comme cadre ko Modou Lo moom mu neex mu naqari mooy roi mais Aziz li mu bëgg am na si plein droit def ko def ko ndax tey jii li mu ci wax dafa neex maa koy def ku ci jël ceinture bi si diggante balagay ak tafaatin mhm. maa lay fay sag weer ba ba ngay amaat komba combat loolu koy yokkute la te beneen sag sag dimanche booy waaw non Lamine du ñu ko bàyyi mu lu ko neex mhm. est-ce que loolu war ko njëkkee si combat waaw Siteu ak Modou Lo Modou bi mu créé ko fa dugal ko fa mu créé boobu dugal waa tey ji loolu lépp dàquma loolu seen laaj boobu mais pour le moment Aziz combat Balla Gaye Tapha Tine la tëgg waaw moom trophée am ak yéenam ci komba boobu la wax te am na droit tegale ko tey jii Mansour Ba mu ngi may dégg bu jàmbaar production muy nit ko baax. muy booy bu yaru. Mm. booy bu am respect si nit. nekk ak grand bu sell ay wax muy papa Sow maa ngi koy nuyuwaale au passage. moom baaxaayam foo ko natt weesu na mm. foofu. papa du wax lu ñaaw du def lu ñaaw. muy grand bu ma jox cër. Mm. ñu taxaw nag maa moom dañuy waxtaan dañuy communiquer. tey jii maa ngi leen di ñaanal ñoom lii Aziz man ñoom it nañ indi tamit seen te nañ ko tàmbali si Modou. Mm-hmm. ne moom pare na ñoom it tamit roi de arènes chaque weer dañ lay fay ba combat ba ñëw ku ci mën dara roi des arènes ñun moom lañu reconnaître Aziz moo ñëw indi l'empereur mhm. Aziz innovation te alburax dañoo ñëwee ak ñëw boo xam ne ñëwuñu ci làmb pour caaxaan dañoo ñëw ci làmb pour liggéey ak pour lu yokku làmb kon am nañ droit teg l'empereur mhm. tey jii am na droit teg ceinture boobu. te moo tax man la Aziz lu mu bëgg a def ak lu mu bëggut def ak lu mu wax ak lu mu waxul yëpp ànd naa ci man je suis man man maay Aziz Ndiaye. ah yaay Aziz Ndiaye waaw man maay Aziz Ndiaye. waaw ma ñëw. Mhm. Bira Sène dafa toog démb. Alburax toog ñu laaj ko ci mbirum mu CNG affaire de roi des mun mu ne leen CNG gëj na amul rek benn roi des arènes bu mu wax ne budul Manga kon dèjà loolu indi na jaxasoo ci biir làmb benn beneen jaxasoo mu ngi noonu kon boog am na yeneen mbërëm bu leen neexee ñu ne ñoom comme CNG moo dem ba abseté roi des arènes nu Modou Lo kon lamb ji amatul roi des arènes loolu may waaw ah, ba ma ñëwaat foofu ba tey nee naa leen empereur ak roi des arènes bokkul dañ ne roi ne l'empereur ma jëmaat foofu tey Bira Sène su ko neexee bañ koo reconnaître am na si plein droit ndax moom moom moom boppam mhm. mais ñun dañoo reconnaître roi des arènes ni am na ndax Balla Gaye dafee daan Yékini mi ñëwoon mooy roi des arènes mhm. ñun ñu def Balla Gaye sunu roi mu doon roi des arènes daan Yékini pare daanaat tafaatin dem ba sunu borom jëlee ko ci moom jox ko bombaar jee ñu ne bombaar jee foo toog looy dégg jël na ñaari yoon roi des arènes dëgg la ba ni mu ko ñàkkee jox ko Eumeu Sène Eumeu Sène mu ngi dégg na roi des arènes mm. Modou Lo la yàlla sunu borom def roi des arènes ku mu neex ku ma naqari boobu ba léegi moo nekk roi des arènes mm. man damaa reconnaître nun boog suñ luñ gis ku nekk roi kala daan mooy roi kon Modou mooy roi des arènes dama koy ñaanal Modou Lo li ci bëgg ci roi bi mm. yàlla na ko sunu borom defal ne Modou mooy roi des mm-hmm. ku ko bëgg ku ko bañ mm-hmm. Modou mooy roi des arènes mm-hmm. xaaral a am lu ma laaj tuuti euh, Lamine parce que Lamine nag dañoo gëj a toog ak moom su ma toogee moom it daa ko laaj wa Balla Gaye ñëw gis Tapha Tine mu toll delluwaat INSEP si la mu yor moo doyut moo tax mu dem wala lan la tey jii comme li ma doon wax rek combat ba mënu mënuma ciy communiquer lu bari ndax xam nga lu tax mhm. combat confirmation la ak jëf ak wane sa bopp jarul wax ñu bari Balla Gaye dafa toll foo xam ne fi mu ne nii askan bi àdduna ñëpp nee nañ mënatul te daa toll si wane ni mën naa ba léegi ndax tollaguma fenn mhm. xale laa ba léegi mhm. Balla Gaye du question de Tapha moo tax mu delluwaat de. ah lu tax mu dellu. Balla Gaye préparé wul woon signature bi Baye Ndiaye moo ko daggal billet pour mu ñëw def signature delluwaat. Hmm. Tapha Tine dañ koo daggal billet fa mu nekkoon moom it parewul woon pour ñëw. Hmm. dañ koo daggal billet Tapha Tine ba mu defee defe naa dégg naa deux jours la ci am dafa delluwaat. Hmm. Balla Gaye pare na ñëw def signature am liggéeyam parewul day dem continuer liggéey. Balla Gaye su ñëwee fii lu mu fiy def. nga am combat bu toll ni tafaatin dangay ngay dem liggéey concentration bi la laaj ak noppalu bi te mënu ko amee fii loolu la wuti ji ak entraînement bu doy te bi mu ñëwee ñëpp gis nañ forme physique bi nekk ci moom day dem rek dolli waar rek kon ne liggéey sëñ sox fils Balla laa ko gën a laaj tuuti rek waaw léegi bi ba amee question doo boobu bi nga xamante ni mook euh, le maire mhm. Ahmed Aïdara def nañ ko ñu gisaat beneen Balla Gaye bu changé entre mu mel gis na Tapha ni mu toll mu xam ni fi ak diisul moom Balla Gaye de li mu bëgg si combat bu ko am. Mhm. waaw ma kontaan trop au passage di nuyu waale monsieur le maire Ahmed Aïdara. Ahmed tax xas leen fi ngeen naan. non xam nga lu tax. Ahmed am na droit xaste am na droit def lépp lu ko ne xam nga nit moom. mooy waa déglu ma chaque jour ma koy wax rek man tey jii chaque jour man leen man lu ma metti du ci ay internet laa koy waxee wala du ci ay télé. Mhm. xëy na Ameth daa amoon lu ko metti mais defoo leen ko dara ba mu leen di xas ah? waaw déglu ma def nañ ko dara ak defuñu ko man wóoruma mook mbëri la quoi xam nga tuddul benn entraîneur diggante mook mbëri la mais Ameth man li ma koy wax rek mooy leen na xam ni géejawaay moom moo fay maire de la ville yàlla moom mu neex mu naqari mooy kilifa képp ku nekk biir géejawaay tey ji suñ doon président Ameth mooy président géejawaay kenn mënu si dara su doon dogal di am mooy def mooy dindi kenn mënu si dara damay bëgg mu xam ne ñoom ñëpp ay njabootam lañ tey ji ba ma ko gisee mook Balla Gaye mu dem UNICEF seeti ko loolu mu def loolu moo ko war loolu laa doon xaar ci moom amee dafa war a tëddee njaaxaanaay doon basang man mii sax su ma ñëwee jaar si kawam dem na muñ te xam ne kilifa la sunu boroom di def loolu mooy nga doon kilifa di nga am façon nit ku nekk di nga dégg lu nekk mais lépp rek mooy li ma doon wax rek kilifa si bopp la du si xaalis du si aas du si yére bu rafet du si dara kilifa ci bopp la te maa ngi koy ñaanal yàlla na jàmmam yàgg yéeneem yàlla na ko sunu borom mottali amet xam na ma man du waxantu mm-hmm. ba mu tollee si jàppale ko man dama ko jàppale moom mu may dégg mm-hmm. ba mu amee la mu bëgg lañ bëggoon man sama souhait mooy mu nekk maire ba mu ko amee pare naa ci parce que man loolu rek laa bëggoon ndax ñun géejawaay lañ am ba mu si paree pare naa ci laaj ko woowu ma ko téléphone defu ma ko dara mu ngi gis sama estati may gis ay estatem te dewu ma diis ko sama soxla waxuma ko dara te ak akamaa amoon atu ci moom mm-hmm. amet su ma soxla woon léegi deux cent mille francs wala un million su ma demee diis ko ko gëm naan dina ma ko jox ndax xam na man maay kan mm. mais ma laaj kenn mais fi ñuy fekk fii fan la fii fi ñu nekk waa fii ñu nekk nag mu ngi ma fekk fee Siraaja Dia uh-huh. faa ma leen ko sax si jàkkaay uh-huh. ndax dangeen ngeen maa fekk uh, foo xam ne nii tey jii gis naa sax ngeen defoon si benn interview ak Youssou Ndour uh-huh. ngeen fekkoon fii kër Siraaja Dia xaaral mu ñëw toog ni jàkkaay toog nii kii sama waay la mm-hmm. sama xarit la sama lépp la dama génnee sax sëriñ tegee ne te génne nga mu yàgg na dama génne sëriñ tegee na le ndax moom nit ku yàlla baaxal nit ku rafet xol la tey ji mën naa ne su ma doon wax ci moom tey jii dinaa wax ci moom loo xam ne ni tey jii paan mais jarul paan damay wax ci moom lu gàtt rek ndax moom bëggul lii sax uh-huh. mais man maa ko imposé ndeysaan ñëw ngeen woo ma ma defee fi émission fii këram ñëw jël si ko uh-huh. maa ngi koy ñaanal tey jii li bëgg yàlla ko sunu borom defal amiin waay nit la koo xam ne nag mu ngi ci ruxam nag toog nëbbatu uh-huh. mais du ma ne sëriñ amul de mais ñi ko mën bariwul de. Hmm? ñi ko mën kenn bariwu ci. ñi ko mën. Hmm. kenn bariwu ci. man nag mooy li ma la wax rek kóllëre moo ma booleeg moom. man yàlla moo ma dimbali ba léegi taxawaay mootloo laa taxaw. waaw mais kii kóllëre moo ma booleek moom. te boole naa ko nit ba taay mosuma cee am gàcce. Hmm. ku ma ko mujj a mos a booleel ay soxlaam faju na te ragaluma koo boole kenn ndax dawul dikkul heure boo ko woo jot ko. saadawul numéro deful dara tey jii su ko neexul fu dëkkee fii tey suba mu dem dëkk fee comme sëriñu dóorkat yi ni ñuy def mais kii moom wax dëgg yàlla doo toog ba mu ne la jox ma fukki dara mhm. muy nit ku baax mhm. maa ngi koy ñaanal lim bëgg mhm. yàlla na ko sunu borom defal man nen lañ ko daan wooyee Siraaja Ja le sorcier rouge ah. le sorcier rouge a ngi di mu ñëw nag dem ba waa parcelle. ñëw jël ko nagu sorcier rouge bi di ko tuddee la messi. le waaw ndax maa ngi ko fekk fii si biir parcelle. ndeysaan. mu jege ma torop ko ñu mm. bii la dëkk mais ñi ko xam sax bariwul ndax man su may ñëw guddi laay ñëw. Ah. du ma ñëw bëccëg de. ba guddi man su may dox guddi laay dox. dëgg moo tax ma fekk ko fii këram ñëw toog fii mu invité ma woon ma añ. ma ñëw di añ si woowaal leen leen ñëw leen fekk ngeen topp maak émission émission man leen ñëw leen ñu defee ko fii si rajo sama gars yaa moom moo baax rek mhm. Mhm. kii dafa baax mhm. quoi dafa rafet xol li ma gën a frappé ci moom dafa bëgg écrit Balla Gaye te da koo jaral lu ne man ma xam si dara mi ngi fay jàppale ay mbër sax te mbër yooyu xamuñ ko yàlla xam ne mbër foofu am na combat ba taay damay toog rek mu ne ma sa waay maa ngi lay wéef te benn somm bu kenn yëg jàppaleel diw pour mu daan bëri na ci ay mbëru foofu noonu ñoo xam ne yëguñu ko de moom jël xaalisam yónnee ma ko pour man ma jàpp si sarax yi mu yónnee ma ko pour man ma ma koy def te pourtant mbër yu bëri foofu xamuñ ko xëy na Youssou moo si fës rek mais am na ñu bëri foofu seeni combat Lamine mii mi ngi may envoyé xaalis di ma jox xaalis pour man ma jàpp si xoolal te musul wax maa ngi koy jégalu tamit parce que lii ko ko wax mais tamit dafa wax ci man faw man tamit moo wax ci moom te dëgg rek ay dëgg mhm. dafa bëgg ay nitam mu jaral ko lu ne nag mhm. donc euh, yéen sant naa leen gërëm naa leen moom moo xam lu mu bëgg ci àdduna moom it yàlla na ko yàlla def moom a gën a rafet xool xu fuuf euh, wàcce na boppam mhm. xam na maslaa doomu aadama yi te bëgg na écrit bi ci njiital gi nag Balla Gaye fii Balla Gaye nay nooyee dafa bëgg Balla Gaye dëgg dafa bëgg Balla Gaye 2. Mhm. Balla Gaye 2 man ak moom dañoo yàgg. torop ñu bari xamuñ ko dama ko xam boo ko nee ja xam na ma moom bu ma nee jàkk xam na ma. Mhm. ku baax la moom it tamit ku baax la ku baax la ku baax la mhm. xëy na yàlla dafa dogal ne gëj nañoo gisee gëj nañoo diggante te gëj nañoo liggéey man ak moom loolu la yàlla dogal mais xëy na dina amaat insha allah di ko ñaanal yàlla jàmm ak salaam mu am combat waaw combat mook waaw te dama bëgg nga def nanga daan def. waaw. Balla Gaye su ñëwee su ñëwul yëpp yow duñ ci jàpp. waaw loolu loolu maag yow la ko ndax combat bi moom mooy suñu combat lépp combat capital la jàpp. man daal comme sànq li ma la waxoon Lamine yow xam nga ne man ma tricher. Mhm. man mbër bu njëkk ñëw si man moom laay jàppale. Mhm. ku mu mënte man daal sama mbër pour le moment fii nii Youssou la. Mhm. à part Youssou amatuma beneen mbër mais wallaahi lazim Balla Gaye doo su ma nee bisimilah ma ne ko araamaani ah direct comme li ma wax sànq daa ko wax nu mu koy daane. ñaata minute lay doon te te ndam mooy am allah ndam nag yàllaa ko moom moo tax ñuy wax incha allah à tout le temps nit da war a dëkk ci incha allah parce que ñun ñii kenn xamuñ ndax loolu dinañ fekk ci kaw suuf kon donc incha allah nañ koy wax parce que ay jullit lañ mais daal di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla defal jàmm yéen ñi fi ñëw tamit yéen it yàlla na leen yàlla defal jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf merci ma jox jërëjëf jërë ngeen jëf Lamine looy tàggatoo rek ñu tëjee foofu waa di sant kii rek wax mooy li ma la wax rek ndax li mu fi wax di muy jëmm ju baax muy jëmm joo xam ne suñu borom am na lu mu ko may tey ji nag ku ci nekk nag mën ngay laam-laamee mais defe naa lii c'est la première fois sama àdduna ma def ko dëgg la toog ak sëriñ ji wax wala mu toog sama wet wala ma ñëw kër sëriñ defee interview mais kii dama ko xam dama ko xam bu baax a baax a baax te dañoo jëflante jëflanteeti ma xam ko bu baax maa ngi koy ñaanal taxawaayam mhm. ak li ko sunu borom may mhm. yàlla na ko yàlla gën a yokk may ko wér gën fan jan ak mu ngi nii rek comme d'habitude mhm. dinaa ko defal lu ma mus a def dinaa ne leen jël leen émission bi ngeen bind si numéro téléphone képp ku soxla Siraaja woo ko moo wax la bi passé ak Balla Gaye ak Balla Gaye bi ñu waxee ginnaaw suba la combat bi la komba bi. Balla Gaye ak Tapha Tine bee. bee paase. waaw bi koy Balla Gaye di daan. Lamine Lamine Lamine def ma see yónnee trois cent cinquante mille pour ma jàpp ko te neen bu ko kenn yëg. mi ngi nii trois cent cinquante mille la ma wéew ci guddi gi. mën nañoo xanaa a ngaa dof mu ne ma jëja aduna amul solo. jàppaleel waa na daan. boobu mooy bi ma yuuxoo ne ko wallaahi azim combat bi du yàgg te Balla Gaye da koy daan. kii moom ma jox si combat boobu trois cent cinquante mille francs bi ñu waxee xaw ma suba la xaw ma ginnaaw suba. non dégloo ci sa kàddu ndax lu may bëgg mu leer ndax tey jii loolu day mel ni ku mel ni andaw tey jii man dama ñëw sama taxawaay pour jox joxoon ko ko rek mais andaw moo ma ko joxoon. Hmm. andaw laa explique woon waxi kii mu yëkkat trois cent cinquante mille bi combat bi desee deux jours. jox ma ko ne ma demal jox sëriñ bi nga doon wax yàlla moo def sax man lool sa fàtte woon naa ko su ma ko wax mais trois cent mille yooyu andaw moom trois moo ma ko joxoon moom mu ngi may gis mm-hmm. Mm-hmm. andaw mu ngi gis ndax boobu 2013 la woon andaw moo ma joxoon trois cent cinquante mille yooyu te wax dëgg yàlla bi ma ko joxee lijjantiwu dama ko wax rek mu jox ma wàññi ko yàllaa def nag dégg ko mu waxal ko boobu man fàtte woon naa ko sax moo ma ko joxoon ne ma demal jox ko ndax gars yi boobu ndam li da leen koo jaraloon ndax man yàlla def na ni Balla ndamam daf maa mës a jaral lu ne tey ji su ma bëggoon xaalis si moom wala ma nekkoon dóor kat mënoon naa am ci moom lu bari ndax nit jox na ma xaalis ba tàyyi pour ma wutal ñaan Balla Gaye mënoon naa koo lekk te du ko xam ndax boo Balla Gaye kenn daawul lijjanti biteel bii laa indi fii laa ko jëlee wala fii ak fii ak fii mais Balla lu ma nit musa jox rek def naa ko ci moom pour Balla def naa ko ci moom te maa ngi koy ñaanal combat bii mu jëmaat mook Tapha Tine yàlla na ko sunu borom jàppale kattanal ko may ko ndam di wax ponkali nekk géejawaay ku ci xam sa ku baax ak ku mu mënti doon demal nga jàppale nga ñaan lu fa ndax xëy na kombaa bi soxla na ko torop may ñaan ba ci xale yi ndaw supporter rek yëpp ndax làmb ji kat làmb entraînement la mais ñaan gi tamit am na solo maa ngi leen di ñaan képp ku ci xam foo mën a dugg rek aajawul nga koy yóbbul biteel mm-hmm. aajowul nga koy digal dara lépp loo war a def rek def ko sa digganteeg yàlla pour sunu borom defal ko ndam làmb ji néew ma la Balla Gaye mais géejawaay moo soxla kombaa bi ndax Balla Gaye moom mooy fii sunu leader biir géejawaay kon maa ngi koy ñaanal ndam bu sedd guy ci combat bi. waaye nag ma dara ci combat bi de. non ja defal ndànk dinaa la bi tafaatin suñu su ma joxee moom laay liggéeyal de. kon ma bàyyi la àdduna ak àllaaxira jërëjëf kon ma bàyyi ma maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp su ma fi waxee lenn loo xam ne lu ma juum la rek maa ngi jéggalu te xam ne wax daa yombul comme li ma yàgg di wax rek. maa ngi jéggalu su dee wax naa fi lu tooñ nit wala lu blessé nit nañ xam ne damaa bëgg mu baax rek loolu rek moom laa si jublu mais juguma pour wax lu blessé nit wala pour loo xam ne lu neex nit la li ma fiy wax ni yëpp tamit lu ma gëm la rek lu may wax ngëm-ngëm laay waxee man bëgguma lu neex nit bay wax loo xam ne gëwuma ko maa ngi ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg liñ bëgg si journée yi li des si làmb ji yàlla na ko sunu borom yeggaleeg jàmm ak salaam